أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن كل من لم يحبني من الرجال والنساء وإني أعيشها بك وسريتها من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همسات الشياطين وأعوذ بك رب أن يعذروني رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي مميت كف من توجه بدر لي له في عاجل يا من يضر naafiu ahli kulla man janaabi naabi durrin waltusil anaabi naafiu ahli kulla man janaabi naabi durrin waltusil anaabi wa dammiran kulla ahdain tadurru bina qabla alwusuli lana yallaahu yallaahu wa dammiran kulla ahdain tadurru bina qabla alwusuli lana yallaahu yallaahu wa kun muisan lana min charri si asadin ma sarri fammin wa sarri ayni yallaahu wa sarri siarin wa sarri lxalqi insihimu maa jinnihim wa sawaati summi yallaahu wa sarri siarin wa sarri lxalqi insihimu maa jinnihim wa sawaati summi yallaahu fatahtali kulla baabin kunta faatihahu li awliyaika ya fataahu yallaahu waftax lana kulla baabin kunta faatihahu li saaniina min alxayraati yallaahu mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu yéen ñi topp seen rajo Baol Média 88 point 5 nekk fii ci tabla caabi xàll ba jëm Touba ñu ngi leen di nuyu di leen siyaara di leen baalu àq te di leen baal tey ñaan suñu borom subhaanahu wa taala suñu kàddu di leen fekk ci jàmm saa su nekk waaye di jiital ci nuyoo bi ak siyaar bi xalifatul am li tayfatul muridiya Cheikh Mouhamadul Mountakha Bachir di ko ñaanal suñu borom mu yàggal ko fi lool te dolli ko ak wér waaye di ko ñaanal xalifa général de Baye ak mboolem xalifa généraux yi ci réew mi di ñaanal mboolem jullit yépp di ñaanal borom rajo bi Serigne Modou Diop Thiat suñu boroom yokk ko gën koo kàttanal gën ko wéral ba mu am ay télévision télévision ci barke alxuraan waaye mbokk yi ñu ngi amaan mbégte ak kontaan di àndaat ak yéen seen émission. xitaayul asraar ñu koy def seet tabiat lay doon ak joxe ay ñaan wala secret yi ñu ciy àndaat ak yéen incha allahu rabbi ngi ànd ak mbo mbokk Mouhamadul Bachir borom tegtal yi mu ci ànd ak tey waaye di àndaat ak yéen àjjuma ci suba incha allahu rabbi kon mbokk yi ñu nga wan mbégte ak kontante suñu DJ Kamouri la ñuy àndal ci xarale gi ñu koy siyaare moom it mooy jàpp ci liggéey bi ba yëpp mën a yebbu waaye di ñaanal ñi nga xam ne ñoo tëdd ci lali hôpitaux yi di ñaanal ñi caabi féete ginnaaw di ñaanal ñi tëdd tawat yàlla suñu borom subhaanahu wa taala génne leen ci seeni jafe-jafe ñoom ñëpp dellowaat leen ci seeni sago ci barke alxuraan waaye di ñaanal mbooleem ñi nga xam ne ñoo ñu topp te nekkuñ ci biir réew mi ak fu ñu mën a nekk ci bitim réew waaye saa su ne ñuy topp rajo bi ci youtube bi ci facebook bi lu mu ci mën di doon ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu di leen siyaare di ñaanal suñu borom subhaanahu wa taala mu yokk leen te gën a ubbi bunt yi ci barke alxuraan waaye it gën a saafara tawat yi ci barke alxuraan yàlla am na ko mën na ko yàlla na ko def mbokk yi ñu amaan mbégte kontaan di àndaat ak seen émission bi nga xam ne dañ leen ci seetal seeni mbir yéen ñi bëgg a leerlu kon mën ngeen a jaar ci 88 628 19 05 88 628 19 05 wala 88 628 81 08 88 628 81 08 mbokkam émission bi nag seet lay doon en direct yow mi woote bëgg ñu seetal la boo duggee sa tur ngay joxe ñu daal di lay leeral say mbir bu la soobee mën ngaa joxe chiffre 1 ba 9 nga tànn ci benn chiffre ñu daal di lay seetal seet gu leer wax la sarax yi nga xam ne moom nga war di génne ci sa wàllu tabi'a waaye it jox la ay tegtal ci wàllu ñaan yow mi nga xam ne tegtal ak gàllankoor dana la ko jox incha allah yow mi nga xam ne wàllu sianr muy jibar moo la gàllankoor dana la jox tegtal yu koy saafara bu fekkee it ki nga xam ne da ko war a jox ay tegtal yuy dindi wàllu cet wala wàllu rab lu mu ci man di doon da nga ko jox ay tegtal baaxee ko defal ko ko addiyee Sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul kon noonu lay ànd ak yéen saa su nekk ngir bëgg jaam ñëpp am jàmm waaye jaam ñëpp jëriñu rek moo tax saa su nañu fi toog ngir di ko jàllale di dimbali jaam ñi yow mi bëgg a dugg ci émission bi mën ngaa jaar foofu kon ci 88 628 19 05 ñu seetal la say mbir yow mi bëgg a seetlu nga joxe sa tur wala nga jël chiffre ba 9 loo ci tànn rek incha allah dinañ la mën a seetal say mbir ba mu leer waaye bu aajo way sarax ñu génneel la ko ak ñaan yi nga xam ne danañ la ko jox yow mu ñu seetal ba pare bu fekkee ni dangaa war am ay ñaani cet danañ la ko baaxe ki war a am ñaani rab danañ ko ko baaxe ki war a am ñaan ci wàllu def-def muy cheikhul njibar bu yàgg ci moom danañ ko ko baaxee defal ko ko addiye ginnaaw bi ne seetalee say mbir naka noonu wàllu tegtal it luñ ci mën a joxe ngir jaam ñi jariñoo ko nañ ko daal di jël incha allah ki mën a aristéré nay aristéré ki mën a bind it nay bind liñ leen di jox ci wàllu ñaan incha allah kon ki xoolu ab diggante it ba tey xam naa dañuy jël mbokk moomu dellusiwaat ci waxtaan wi salaamaaleykum. waaw ku ku baax ki ñu lay siyaare. maa yaa ngi si jàmm bu baax. bu alhamdulilah yokkal kàddu gi tuuti rek. taala. waaw. da ngaa bëggoon a seetlu mbir yi. waaw maa ngi ñaan bu coupé na nga continuer ngir a arrêté dégg waaw ndeysaan waaw incha allah suñ taala dafay wax ne yow ci sa jëmmi bopp danga nga war di génne sarax. sarax yi nag nee na bu fekkee pepp baax na bu fekkee mboq baax na bu fekkee ni li nga xam ne mooy dugub ba tey baax na dégg nga. ñett yooyu boo ci mën di am nga di ko faral di saraxe sa tabia bëgg na ko man ngay jëlit lu mel ni wàllu laax soow nga di ko saraxe di ko jox ay xale benn ndab ba ñetti ndab lu doole ji àttan rek incha allahu rabbi boo koy def dana baax ci loolu dégg nga ba tey saraxu laax moom it boo koy def sa kër nga koy defee mooy li gën mu ne bu fekkee jàppate nga aw yoon bala ngay génn dee ko saraxe moom laax incha allah boo ko dee def rek seen mbir dana gën a ubbeeku te dana gën a yéwén boo ko mënee wàllu yaram bi nee na nga def ci ay ñaan nga wut ay suuraay incha allah nga di ko suuroo ay ñaan jamono ji nee na war naa am ci yow ci wàllu cuuraay yoo xam ne da nga koy suuroo ngir mu dindi ngelaw lu yàgg ci yow boo ko ma na nga ko def te nga bind la sóoratul xadri incha allah boo ko defee dana baax ci lool ci kàttanu suñu borom subhaanahu wa taala waaw li mu juróom-ñaar baax na ci nga di ko faral di sangoo moom it baax na dégg nga boo ko defee dana baax ci kàttanu suñu borom subhaanahu wa taala sa wërsëg nag nitu wërsëg nga waaye sa wërsëg dafay faral di takk da bari loo yàqul yow ci sa jëmmi bopp dégg waaw loolu kay waaw ngaa bëri loo yàqule lool waaye boo ko mënee da ngay fonk sarax yi te nga def ay ñaan ci sa wàllu bopp ndax lu demeen wàllu cat ñaare dafay faral di yàq say mbir te da ngay gis ne gàllankoor yi dafay bari lool ci yow lépp looy am yaakaar ngir nga jot ci dafay doon jafe nag ay léegi loolu mooy jafe-jafe yi complètement waaw wér na trop waaw ndeysaan léegi da ngay wut ay ñaan ci wàllu cat ay wàllu gàllankoor dégg nga nga raxas sa yaram ba mu set te nga wut ay ñaan yi ubbeeku dégg incha allahu bi boo ko mënee suñ taala dana baax ci yow jamono ji ay ubbeeku moo gën a taxaw ci yow ak luy raxas sa yaram parce que say jafe-jafe dafa xaw a bari lool te li ngay jànkoonte ki coono jamono yi dafa bari boo ko mënee da ngay wut ay ñaan ay muslaay incha allah ay ñaan yoo xam ne dana raxas sa yaram dindi def def yàgg ci sa yaram waaye dindi wàllu cat bu yàgg ci sa incha allah boo ko defee te nga wut ay ubbeeku dana baax ci loolu nit ku man nangoo liggéey la waaye dafa euh, doon nit koo xam ne dafa bari lu muy yàqule lool waaye ci bari loo xam ne moom moo ko gàllankoor kon sintaala boo ko mënee da ngay def ay ñaan incha allah wàllu luy raxas yaram wi waaye it wàllu luy dindi cat yu yàgg yi ci yow boo ko mënee it nga wut wàllu ubbeeku incha allahu rabbi dana baax ci yow lool ci kàttanu suñu borom subhaanahu wa taala bul sàggan ci sa jëmm sintaala bul sàggan ci sa jëmm 88 628 19 05 bu fekkee ni ki nga xam ne dafay seetlu digganteem ak soxnaam mën naa dugg mu joxe turam ak turu soxnaam incha allah ñu daal ko koy xoolal bu fekkee dafa bari gàllankoor wala ay yàqu-yàqu mu bëgg ci ay ñaan danañ ko jox tegtal li nga xam ne moom la ci war a doxal bu fekkee dafa aajowaay saraxit <clears throat> danañ ko ko baaxee ba mu leer ci moom bu fekkee ki nga xam ne it dafa nekk ci ngoro moo xam góor la wala yow jigéen gi la ngay ñuy dégg yow soxna si wala simbi nga bëgg a xool diggante boobu mën ngaa dugg joxe ñaari tur yi ba tey ñu fàttali leen ku woote bëgg ñu jël la ci suuf it ba tey boo duggee nee jël ma ci suuf danañ mën a ànd ak yow jël la ci suuf ngir li ñuy wax ñun ak yow rek ñoo koy dégg su boobaa incha allah ki bëgg ñu jël ko ci suuf bu duggee na wax ne jël ma ci suuf ci kàttanu borom bi danañ ànd ak moom wax ak moom ci suuf bu fekkee kii xool yoonu tukki ba tey moom it mën naa dugg joxe turam ak turu réew moom bëgg a dem bu fekkee ci biir réew mi la nga bëgg a dem ci dëkk bu la sopp moom it dangay joxe sa tur rek daal di joxe turu dëkk ba ñu daal di lay xoolal sarax yi ci war a génn waaye bu fekkee sa jëmm aaji woon ay ñaan dana la jox ay tegtal bu fekkee danga war a ubbeeku dana la jox ay ñaani ubbeeku bu aajo woo néggandiku la ko leeral tamit ba tey ay sarax yu ci war a génn danañ la wax sarax yi nga war a saraxe bala ngaa dem bu fekkee kiy xool lu digganteem ak nit la wala muy xool lu digganteem ak yoonu bëgg a dem mën naa wax jël ma ci suuf incha allah bu ko bo boo ko defee su boobaa dinañ ko mën a jël ci suuf ngir leeral ko ay mbiram ba mu leer waaye wax ko ay saraxam bu fekkee dafa aajowooy ñaan it ak i tegtal danañ ko ko leeral ki seetlu moom chiffre lay jël 1 ba 9 wala mu daal di joxe turam incha allah ñu seetal ko kon yow mi bëgg a woote crédit ñeent fukk ba téeméer loo ci am di nga mën a ànd ak ñun crédit ñeent fukk ba téeméer loo ci am di nga mën a ànd ak ñun ci biir émission bi waaye ligne du jàll bu ñaay du jàll waaye bonus it mënta woote ci rajo bi waaye crédit moom yombalal na leen ko ñeen fukk ba téeméer loo ci am di nga mën a ànd ak ñun ci biir jataay bi ngir ñu mën laa seetal waaye 88 ngay def sero 628 19 05 88 628 19 05 wala 88 628 81 08 boo ci jaar rek incha allah di mën a seetal ci kàttanu suñu borom. salaamaaleykum. waaw. 88 628 19 05 mbokk mu yëgluwaat dañuy daal di ànd ak moom ki woote di bëgg a xoll ci suuf mën nañ ko jël ci suuf mu joxe turam bu fekkee day seetlu bu dee day seetlu digganteem soxnaam wala borom kër yow soxna si woote wala siñ bi nga bëgg ñu jël la ci suuf boo duggee boo nee ci suuf rek daañu la jël ci suuf leeral la say mbir ba mu leer incha allah bu fekkee it kii xoll yoonam la yoon wu muy jàpp ngir tukki génn mën naa dugg joxe fa mu bëgg a dem ak turam moom ñu xoolal ko ko wax ko sarax ci war a génn bu aaju way ñaan danañ ko ko leeral ci kàttanu borom bi subhaanahu wa la kon bu mbokk yëgluwaatee dañuy ànd ak moom continuer seet gi am mbokk mu yëglu salaamaaleykum. maaleykum salaam ku baax ki maa ngi lay siyaar bu baax. Adil Dalla ziar bu naka coono yi. bu baax alhamdulilah. mbaa yéen a ngi ci jàmm bu baax. waaw alhamdulilah ñu boo bëggee da ngay seetlu mbir yi. waaw waaw da seetlu. waaw tur wi ngay joxe wala chiffre un ba neuf nga tànn. Euh, ah. ma joxe chiffre six. waaw chiffre chiffre six. nga tànn ngir ñu seetal la ci say mbir. Hmm. waaw chiffre six wàllu wërsëg moo njëkk a taxaw ci say mbir mbokk mi nitu wërsëg nga de. Hmm. incha allah nitu wërsëg nga de nee na waaye ci sa jëmmi bopp wërsëgu yaatu na lool waaye nag nee na léeg dafay faral di am ay takk-takk. nee na loolu nag lu koy waral wàllu làngandoo nga fonk sarax. incha allah mm. na mbokk mi boo ko mënee boo gisee kuy wecceeku lu mel ni wàllum picc da nga ciy wut juróom-ñaari picc bu ci nekk nga ñaan ci sa soxla nga bàyyi leen ñu dem wàllum mm. tukki it bari na ay njëriñ lool ci yow di déplacé wu foo mën a dem moo xam ci biir réew mi la moo xam ci bitim réew waaye aajo woon ay ñaan nag incha su boobaa dégg nga nee na mm. wàllum ñu lekk ay ñam ci yenn place yi dee ko wattandiku ci wàllu mbooloo yi deme noonu incha allah boo ko mënee dee ko wattandiku bu baax a baax a baax ndax wàllu cat ak wàllu bëtt ñaari lim lay yàqal dafa bari lool ci sa wàllu dundin mu ne boo ko mënee wutal euh, bindalul juróom-ñaar fukki basmala dégg nga nga di ko sangoo boo ko defee dana baax ci say mbir incha allahu rabbi sa wërsëg dana gën a ubbeeku te dana la gën aar ci côté yu bare bare bare bari ci kàttanu suñu borom subhaanahu wa mu ne boo ko mënee booy duggati ci mbooloo deel léemu boo ko mënee deel tari yaasin ba ca afalaatu bi suruna afalaat bi suruna nee na nga ëf ko ci sa kanam incha allahu rabbi nee na boo koy def dana baax ci lool bu fekkee moo ko nee na ngay faral di bind lu yaasin wal xuraanil hakimi nga di ko faral di sangoo weer woo dugg nee na nag jërul di baril waaye weer woo dugg ba la neexee mën nga koo bind li mum ñetti yoon wala juróom-ñaari yoon nga sangoo ko fu amul sobe soo koy def dana baax ci sa biir lool nee na boo ko mënee ba tey nee nga sàkk sarax ganaar gu jigéen nga génn ko sarax ko hmm. akum soow incha allah nga def ko muslaay ci yow boo ko defee dana baax ci yow te wàllum werante nee na jege na lool bari na lu muy am waaye nag nee na jàmm rek moo ciy mujj mbirum sëyit ba tey feeñaan na ci sa diggante ak jigéen nee na dana baax de waaye nee na ay rëng-rëng dana ca am nee su boobaa nag na nga ca def ay ñaan ci kàttanu borom bi lépp dana baax ndax njaboot dana ca taxaw su boobaa wërsëgu yaatu it wërsëgu ubbeeku dana ca taxaw ci kàttanu borom bi subhaanahu wa taala soo ko mënee nee na booy génnati di jàpp aw yoon soo ko mënee bala ngay demati na ngay génne sarax juróom-ñaari mbuusi soow mooy sarax ba su boobaa ngir nga doog a dox yitte jooju boo ko defee dana baax ci yow wàllu liggéey ba tey it feeñ na ci nee na jàmm rek moo ci taxaw jaaxle gi nee na bu ko ci am ak njàqare gi dégg nga wàllum liggéey it na gisu ko ci yow waaye gént yu bari moom feeñ na ci say mbir ah, mbokk mi dagg na waaye bu nee ñëwaat danaa ko gën a leeral ay ñaan yoo xam ne dina ko mën di doxal 88 628 19 05 88 628 19 05 wala 88 628 81 08 borom chiffre 6 nga bàyyi xel bu baax a baax sarax yi ma la wax boo ko mënee nee naa la nga génnee lu demee ni wàllu ganaar gu jigéen sab sarax la waaye am soow it par juróom-ñaari mbuus man nga di ko faral di génne nga di ko saraxe incha allah salaamaaleykum waaleykum ku baax ki maa ngi lay siyaare. ki la waree de jël may suuf. waaw bisimilah. mbokk moom rëcc na waaye mën naa àndaat ak ñun léegi crédit ñeent fukk ba téeméer loo ci am mën nga ànd ak ñun ci biir jataay bi ñu leeral la say mbir wax la sarax yi nga war a doxal bu aaji ñaan dana la ko jox yow mi war a sangooy ñaan la danaa la ko jox yow mi wala suuru danaa la ko leeral incha allah yow mi war a takk muslukaay dana la ko leeral bu fekkee ki cat sonal la dinaa ko leeral incha allah ñaan yi baax bu fekkee ki nga xam ne it wàllu def-def muy njibar wala wàllu rab moo ko sonal danaa ko jox ay njariñ yu ci am solo ci kàttanu suñu borom ngir mu doxal ko waaye balaa loolu dama lay jox say sarax yi nga war a jëfandikoo ak lan mooy say gàllankoor mu am solo lool ci sa wàllu dundin nga bàyyi ko xel yow wootee bu fekkee ni da ngay seetlu chiffre 1 ba 9 wala nga joxe sa tur incha allah ñu daal la ci seetal boo bëggee ñu la ci suuf it boo duggee ne ma suuf dinaa la jël ci suuf waaye it nga bàyyi xel ne ligne du ñu woo bonus du ñu waaye crédit li tàmbalee ñeen fukk ba téeméer loo ci am rek mën nga ànd ci biir jataay bi ñu yombalal leen ko crédit rek la ñuy soxla nga jënd ko woote ñu seetal la say mbir nga joxe sa tur <clears throat> wala nga jël chiffre lu la ci soob rek incha allah dina la ci mën a seetal yow mi xool sa digganteeg soxna wala borom kër moo xam ngeen nekk ba pare wala it ngeen di waaj a nekk nga bëgg ñu xoolal la ko incha allah nu muy taxawee danañ la ko leeral wax la sarax yi ci war a génn bu aju ñaan dana la jox tegtale ca war incha allah bu fekkee dañoo ànd ba pare waaye mu bari ay coow lool wala mu bàyyi wala mu bari dem ak dikk lool wala it mu bari li nga xam ne mooy tawat lool moom it lu mu ci mën di doon rek incha allah ci ñett yooyu dinaa la wax euh, sarax yi ci war a génn ak lan moo waral lu demee noonu waaye jox la ay ñaan yu ci am solo am na ci diggante yoo xam ne bu ñu àndee mbokk mi ngir njaboot sosu ci day dëgër lool waaye nga gis na ñii bu ñu àndee wàllu dal ngir mu am ci du yomb nga gis ne ñiit bu ñu àndee wàllu wér ngir mu am ci du yomb loolu lépp dafa am lu koy waral loo gis rek euh, incha allahu rabbi am na lu ko waral waaye it am na fees ko mën a jaar incha allah ci kàttanu borom bi subhaanahu wa taala alquran dana waatul buyuuta min abwaabiha tad'uhaa silaa'ul mu'min 88 628 19 05 ci ngay jaar yow mi bëgg a woote mën nga ànd ak ñun en direct boo wootee rek ñu daal lay jël seetal la say mbir moo xam chiffre nga jël 1 ba 9 wala nga joxe sa tur incha allah dinañ la ci daal di mën a seetal bu la soobee nga jaar ci 88 628 81 08 88 628 81 08 wala 88 628 19 05 88 628 19 05 ñu jël la ci kaw wala ñu jël la ci suuf boo wootee incha allah leeral la say mbir ba mu leer bu fekkee aajo woon ay sarax walay ñaan yu ñu la jox ay tegtal ci say gàllankoor dana la ko leeral kon yow mi woote mën ngaa daal di gaaw jaar foofu ñu daal lay seetal say mbir kon dañu ànd ak yéen ba ca kanam ngir seetal leen seeni mbir waaye jox leen ay ñaan ci wàllu tegtal yu am solo incha allahu rabbi salaamaaleykum ku baax ki maa ngi lay siyaare yàlla di si jàmm bu baax. ñu ngi sant yàlla bu jamono ji. sant gërëm da ngaa bëggoon a seetlu say mbir. waaw. bu la neexee ñu jëlee ci kaw nga joxe tur wala chiffre bi rek incha allah ah, mbokk mi rëcc na. am naa ñaari réseau lay doon rek waaye mën ngaa daal di woote waat réseau lay doon 88 628 19 vingt 88 628 19 05.

88 628 19 05 mën ngeen woote foofu incha allah ñu daal di lay seetal say mbir wax la say sarax ak say ñaan yi nga xam ne war na nga ko jëfandikoo bu fekkee ki nga xam ne boo ko leeralee ay mbiram da ngay gis ne cat mooy ay gàllankooram danañ la daal di jox loo xam ne dana ci am solo lool ci sa wàllu wér yaram nga daal di koy jëfandikoo wàllu cat man laa musal ci yu demee noonu incha allah wàllu wax wàllu bët mbokki ak yonante bi dana al aynu xaqun alfamu xaqun bët ak làmmiñ lu dëggu la lu am la sëriñ tubaa daan wax ne wa kun muisan lana min charri si asadin ma sari fammin wa sari al ayni yallaahu wa sharri chialin wa sharri alxalqi in chihimu maa jinnihim wa sawaati summi allahu waaye mbokk mi yow mi nga xam ne ba tey lu demee ni wàllu gàllankoor yi boo xoolee wàllu njibar la maanaam dangaa nekk ki nit ñu bañ nga raw mu iñaane la wala ay coow dox seen diggante mu daal di lay yàqal ci côté yi demee noonu tëj see bunti wërsëg wala mu njibar la euh, maanaam li mu mën a def ci doomu adama bi daal bari na waaye lu mu ci man di doon incha allah nga bëgg ci ay ñaanam yu koy dindi yu koy saafara ngir ay tegtal ci alquranul karim danañ da jox ay tegtal ci alquran incha allah ngay seetal la mbir yi xam li ko waral ñu jox la ay tegtal ci alquran bu fekkee it ki nga xam ne da ngay seetlu ne moom lu demee ni wàllu rabaa rawaan nag yu demee noonu moo tëj ay mbiram mën nga ko daal di jox ay tegtal yu ci am solo waaye wax ko ay sarax yu mu war di doxal da ciy am solo lool ci dundu doomu aadama bi ngir mu ay mbiram man di ubbeeku waaye ay buntam xewali mën a ubbeeku incha allah ci kàttanu borom bi subhaanahu wa taala bu fekkee it ki nga xam ne da ngay seetlu ne moom nangu naa liggéey lool waaye ay buntam dafay faral di tëju waaye mu bari lu muy yàqule lool incha allah ñu jox ko ay cangaay yu ci am solo nga gis ne am na ci jëmm yoo xam ne jamono ji maanaam sarax rek buñ ko fonkoon sarax buñ xamoon sarax yi ñu war di doxal rek di ko saraxe seeni mbir day ubbeeku lool seeni mbir day daal di dox day daal di baax incha allah waaye seen jëmm day mën a ñoŋu ci yu bare baree bari kon yow mi ñu dégg te bëgg woote ci jataay bi mën ngaa daal di jaar foofu 88 628 19 05 ñu seetal la seet gu leer ngeen di ànd ak Mouhamadul Bachir muy ànd ak yéen borom tegtali nga xam ne saa su ne day ànd ak yéen altine waaye alxames ji tey ñuy ànd ak yéen incha allah di leen ci seetal seen i mbir di leen waxit seen i sarax waaye di leen jox ay ñaan yoo xam ne wàllu tegtal yi kenn ku ci nekk ginnaaw bi ñu la leeralee say mbir danañ xool tegtal yu baax ci yow waaye yu am solo ci sa jëmm ñu daal di la koy baaxee bu fekkee ki nga xam ne dafay woote te bëgg ñu jël ko ci suuf it mën naa daal di woote ñu jël ko ci suuf incha allah waaye ligne moom du woote bonicide du jàll crédit moo nuy woo ñeen fukk ba téeméer loo ci am di nga mën a woote jàll ci biir émission bi ñu daal di lay seetal seet gu leer wax la say sarax bu aajo waay ñaan dana la jox tegtal yu ci am solo incha allah yow mi xool diggante nga bëgg dugg soxna wara borom kër waaye it wala ngeen ne ba pare mu bari ay jafe-jafe wala ay gàllankoor ci wàllu wërsëg wala lu demee ni wàllu coow bari ci wala lu demee ni wàllu tawat bari ci nga bëgg a xool gàllankoor lu ko waral ak sarax yu ci war di génn incha allah danañ la ko daal di baaxee boo wootee ci 88 628 19 05 88 628 19 05 wala 88. 6 28 81 08 incha allah ñaari numéro yooyu boo ci jaar rek di nga mën a ànd ak ñun ci biir jataay bi ñu leeral la seet gu leer wax la say sarax waaye bu ajowoo ay ñaan dana la ko daal di leeral ba mu leer incha allah jox la tegtal yi ci baax bu fekkee ki cat jàpp wala ki rab jàpp wala ki nga xam ne wàllu njibar moo ko jàpp te ci ay bunta moom it danañ ko daal di jox euh, tegtal yu ci am solo yoo xam ne dana ko mën a tàggaleek mbir moomu waaye dana mën a ubbeeku ci wàllu wërsëg wala ci wàllu liggéeyam moo xam ki nga xam ne wàllu bayre moo baax ci ay mbiram wala it ki nga xam ne wàllu tijjeeku ci wàllu mbooloo moo baax ci ay mbiram incha allah lu mu ci man di doon danañ la jox tegtal yu ci am solo yoo xam ne boo ko jëfandikoo rek dina daal di am solo lool ci sa wàllu dundin waaye dana ubbi say bunt ci kàttanu borom bi subhaanahu wa taala kon noonu lay àndeek yéen ba ca kanam yéen ñi nga xam ne da ngeen a bëgg a seetlu mën ngeen a jaar foofu waaye ba tey ki nga xam ne dafa bëgg dafay woote ngir bëgg ñu baaxee ko lu demee ni wàllu ubbeeku wala wàllu kaaraange wala lu demee ni wàllu wàllu wàllu wàllu wàllu wàllu luy raxas yaram wala luy ubbi bunti wërsëg wala bayre boo duggee moom it incha allah loo ci bëgg rek mën ngaa daal di woote ñu jox la tegtal yu ci am solo nga doxal ko bu fekkee ki nga xam ne wàllu tur nga ko war a jox ngir mu liggéey ko danaa la ko baaxee moo xam tur man a doon moo xam latif la wahab la wala waduud la wala istixfaar la istixfaar lu am solo la wala basmala lu mu ci man di doon incha allah danañ la ko daal di baaxee ngir sa bunt di ci gën a ubbeeku ndax alquran dafay wax ne fa xultu staxfiru rabbakum innahu kaana xafaara waaye yursali samaa aleykum midraara waaye na ko yumditkum bi am amwaalin wa baniina kon doom ak alal lépp da ci taxaw wa yajal lakum jannaatin wa yajal lakum anhaara maa lakum laa tarjuna lillahi kon loolu da ci am solo lool istifaar lu am solo la maanaam dana ubbi doomu aadama bi dana ko may njaboot dana ko may wërsëg waaye dana ko aar waaye dana ko raxasal ay bakkaaram kon istifaar mbokk mi dafa doon lu am solo ci dundu doomu aadama ngir mu di ko même boo jëlul limu istixfaar bi di ko doxal lim bu mag it nga di ko euh, doxal maanaam bu fekkee danga koy def téeméer yoon it saa bu bala ngaa wér di aw tur ci man di doon bu fekkee dangay ngay def istixfaar téeméer yoon incha allah da ciy am solo ñu jël mbokk moomu salaamaaleykum. allo. waaw soxna si maa lay siyaare. allo. bisimilah si maa ngi lay siyaar bu baax. mbaa yaa ngi si jàmm bu baax a baax. day ami da bëggoon a seetlu say mbir. waaw. Hmm, soxna Ndeye mi mën ngaa taxaw ñu xoolal la mbiri incha allahu rabbi. Hmm? soxna Ndeye mi mu ne day wax ne ay xat-xat ak ay xalaat yu bari ak ay aajo yoo xam ne jamono ji mi ngi la taxawalee ci sa jëmmi bopp. nga mbokk mu sës ci yow wàllum tukki la moom sori jamono ji waaye dana